groupes parlementaires, euh, Benno Bokyakar, la coalition Wallou également, le groupe Liberté, Démocratie et Progrès, Ibrahim. Cher Bamba, comment s'est passé le vote on a, on a parlé quelque part d'un vote à huis clos. Est-ce bien le cas Non, non. Euh, c'est un vote à Donc, euh, on a bien identifié ceux qui ont voté euh, contre, bien entendu. Par exemple, les députés de PASSEF n'ont pas voté, par exemple, le projet de loi d'amnistie. Euh, ils n'ont pas voté. Euh, et pourtant, le député Abambaï, qui était intervenu euh, au pupitre, a dit que nous n'allons pas, nous n'allons pas refuser ce projet de loi qui nous a été soumis, visant à amnistier toutes ces personnes, tous les faits du moins, parce que l'amnistie vise les faits, ne pas les personnes, dépasse les personnes. Voilà, mais on a constaté que les députés de PASTEF n'ont pas voté, tout comme les députés de Tahoe Sénégal, qui a fait un petit peu que le a mais à la grande majorité hein, avec la coalition Beno Bokyakar et le groupe euh, Liberté, Démocratie et Progrès. Donc on est arrivé à ce chiffre de 95 voix pour euh, qui ont donc euh, euh, ce projet-là d'amnistie qui amnistie les faits entre mars et février C'était un vote donc à, à main à la plénière. C'est passé en commission déjà et en commission c'est passé à 6 voix pour contre trois voix qui sont contre. Donc déjà en commission, ça montrait que la loi allait passer. Mais cher papa, peut-être revenir sur tout cela en, en Wolof, puisque c'est l'actualité forte de ce euh, mercredi. kon nag euh, loi bi nga xamante ne moom la ñu tuddee euh, loi amnistie maanaam fexe ba jégal ñi nga xamante ne bokkoon nañu si manifestation yi diggante mars 2021 février 2024 loi bi donc jàll na Cheikh Bamba waaw Ibrahima jërëjëf maa ngi lay jaajëfal bu baax loi bi jàll na Euh, voté nañ ko léegi sax mu mat waxtu wala mu jege ko euh, ñi ngi ko voté nag ci à une majorité euh, nga xam ne ñi ko voté toll nañ ci quatre-vingt-quinze voix maanaam juróom-ñeent fukk ak juróomi député yo xam ne voté nañ ko ñoom ñoo ko voté coalition Benno Bokk Yaakaar groupe Liberté Démocratie ak ñeneen ñu nga xam ne voté nañ ko juróom-ñett ñeent fukk ak juróom-ñett maanaam quarante-huit députés ñoo voté contre trois abstentions Euh, donc euh, liggéey nag nekkoon na ay liggéey yoo xam ne wax dëgg yàlla tey assemblée bi y avait amoon na ambiance bu baax bu neex niñ ñu koy gisee léeg-léeg honorable député président Abdou Mbow groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar léeg-léeg sax mu tooñ waaye Yewwi Askan Wi également Cheikh Seck def noonu Seydou Diouf def noonu ki nga xam ne moo di Samba Dang également ñëw def noonu pour bi dire que ambiance bi nekkoon na ambiance bu baax malgré les positions yi nga xam ne ñenn ñi jàpp nañ ne bon bu ñu amnistier comprendre wuñu esprit loi bi parce que ñu bari dañuy jàpp ne am bi peut-être dafa euh, ay nit la mais au-delà de ça amnistie ay fait la ay fait ba tey li nga xam ne mooy cëslaay li mooy nem lu ko sous-entendre mooy jéggale c'est vrai jéggale la ñu wax euh, te ñi jël kàddu ñëpp ku ci mel ni Cheikh Bara Dolly Mbacké ne ñun ay jullit lañ yàlla sax dañ koy baal mu ñuy jéggal sëriñ ci nga xam ne sax ak kilifa diine yi nga xam ne fii dañ a tooñ ba pare mais dañuy jéggale donc pourquoi pas ñun tey ji président Macky Sall bu ne nañuy jéggale moom ci boppam nga xam ne moom moo ne jéggal na ñëpp pourquoi ñun duñu jéggale ki nga xam ne moo di honorable député Cheikh Bara Dolly Mbacké nga xam ne ku ne xam na ay position am du may euh, maanaam majorité bi dara tey moom dafa taxaw ne da koy voté également ba pare wax lu tax mu voté ko donc loolu nekk loolu am solo bon waa Pastef également bon voté wuñu euh, déggoon nañu dinañ def abstention mais finalement ils se sont pas abstenus Euh, waa taxaw également ñoom clairement bi ñu taxawee euh, ci pupitre bi nee lu ñu ko voté également ils avaient leur raison mais la majorité en tout cas tous les députés de la majorité ont voté le projet également le groupe liberté et démocratie du PDS et changement également ils ont voté euh, voté nañ tey ji loi bi Ibrahima. Cheikh Bamba nga gën ko leeral abstention yi ngay wax ñan la exactement. abstention yi ñetti abstention rek lañ ci nemmeeku abstention yi. bon parce que ay article la boo xoolee article premier am na ñetti abstention article deux am na deux abstention article cinq am na abstention ay abstention mais bu ñu xayma abstention yi mën nañu wax ni sax ñaar la mën na sax ñu wax ni ñaar la mais ci opposition bi lañ bokk ñaari abstention yi ci opposition bi lañ bokk euh, donc pour vous dire que bon euh, nekk na quand même lu lu néew nekk na lu néew parce que ñu doon xaar quand par exemple waa PASTEF euh, ne dañuy abstenir mais finalement ils ont ils ont voté contre taxaw a voté contre mais ab am na ñaari abstention yoo xam ne ñoom lañ jot a nemmeeku fii mais li ñu jot a nemmeeku mooy euh, projet de loi bi ni mu jàllee ak majorité fekk parce que quatre-vingt-quinze voix quand même nekk na une large euh, quand même majorité euh, contre quarante six boo xoolee sax dafa doublé wala ba romb ko donc tey jii mais lii gisoon nañ ko ci commission parce que bu mu jàllee commission de loi en commission technique Euh, y avait seize députés fukk ak juróom benn yoo xam ne voté nañ ko déjà mu jàll en commission ñett rek ñoo voté woon contre donc tey jii dañ doon wax ni plénière bi euh, formalité la également pour amor euh, anéantir les angles et tout voilà amortir et arrondir les angles comme on dit et mais on a vu que y a beau y avait y avait beaucoup de par exemple parce que projet bi mu ni mel ñu gis par exemple mu dem convaincre ñenn ñi wax ak ñenn ñi et cetera wax ak waa opposition bi également nekk aussi fii Euh, groupe moo la mandaté ñu la mais au delà de ça li nga xam ne moom la président woote groupe président groupe parlementaire yi wax ko également ku ci mel ne Abba Mbaye moi je salue sa sa posture je salue sa posture il a parlé vraiment de de, de façon très posée et même Birame Souleye Diop également qui a parlé de très façon très posée ne indil nañu amnistie pourquoi pas duñ ko saisir maintenant nag xam nga bu ñu demee ba ci bi peut problème harmonisation et cetera et tout ça mais on peut euh, wax ni Euh, franchement liñ ci doon xaar sax ñu koy xaxar ci projet bi amul mais nag nekk ci ay considération politique et tout ça mais je pense que ne bu fekkoon peut-être mën na nekk vote secret bari nañ ko voté voilà mais comme nu mu nekk main levée également nga xam ne voilà mbirum politique la également toutes les considérations mais ku ci dégg tey ñoom ni ñu waxee nga dégg ni franchement ils ont parlé avec beaucoup de sérénité ak dal tamit également kon nag euh, mu